takk naa la dinaa la Seex Mustafa waajaye Seex Mustafa yaay jaamu Bamba ni bakk naa la dinaa ni yàlla mi borom jaam ñi def na la ngay jàmbaama. Seydou Moustapha yaay jaamu Bamba. ni yàlla mi borom jaam ñi def na la ngay jàmbaama. Seydou Moustapha yaay jaamu Bamba. ni bàkk naa la jilla. Seydou Moustapha yow laa. bàkk naa la jilla. Seydou Moustapha yow laa. fàkk naa la jig naa la Cheikh Moustapha waa jànge Cheikh Moustapha yaay jaamu Bamba dana leer ne moom lu medu Cheikh Moustapha waa jànge Cheikh Moustapha yaay jaamu Bamba ñoom seen jëf ma ko baaxoo seeree laa ko seet wax leen nañ jëm dab yi dem fañ jàng loolu indi dab yi fii ñu dem mbaar mi la ñu ko kon sëñ bi sant na leen bu baax gërëm na leen lu ñu si wax yéen ndax yéen li war a nekk ci yéen lépp nekk ci yéen ci taalibe ngeen macha allah ni taalibe war a mel xanaa di leen ñaanal yàlla suñu borom yombal lan leen xéewal wërsëgal leen wërsëg yu teey yu ànd ak jàmm yu lew yu ngeen mën a àndeek moom eh, di ko dooleel di ko kattanal ba li ngeen ko yéene ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi mu mën a ànd ak yéen jëf ko ba ñëpp teg seen bët xolam seet na guy xelam dal na lool nee na mbooleem li sëñ Moodu wax rek dëgg li ngeen am ci xolam am na ko jëmmam bu ko waxoon ñu bari xeeb seen cër te loolu kenn mayu leen ko yéen wax may seen bopp seenu dëggal ak seen melokaan yi ba sëñ bi waree gannaaw ba am kenn mës sa jaaxle ngir yéen loolu nag taalibe bu rafet ak am kilifa rek moo leen ko may xam nga na ngeen sax rek am kilifa boobu bu ngeen ko defee lu ngeen bëgg seen diggante moom rek amug loola day gën a yomb ci yéen waaw ndax ku am kilifa lu mu bëgg rek sa borom gàttandu ko ci loolu waaw kon sëñ Moustapha nee na seral ngeen xolam guy yàlla na sëñ Touba seral seen xol ndaw ñi amagu duñ jàpp yàlla leen ko yàlla jox ñi am luñ jàpp yàlla na yàlla barkeelal leen loola waaw ñi nga xam ne ñëpp itam dañoo am yéene te mënaguloo jëf yàlla na yàlla kàttan na leen ba ñu mën a jëf seen yéen daal nee na seereen na jaamu borom Tuubaa ni ko bàyyi ma daawul ak ñu ma jaboote wàccoo na moom moom nag bàyyi na la jaamu Serigne Touba xam na ni fu ngeen bëgg a àgg ci liggéey bi rek di ngeen fa àgg li sëñ Modou wax ci aw des dégg na lépp waaye loolu na ngeen xam ne seen jëf rek ak seen yéene moo leen ko may te nee na ngeen dem bay desal ay gétt incha allah loolu leen fàggu seen jëf di ngeen dem ba bu ngeen màggalee ba agal li ngeen di jital di ko yëg gétt li doon waaye mala wañu a wàññi te loolu bu len ko waxee war ngeen ko gëm ndax li tam woon ni mel ko ni li tam wa kon bu yalla yalla ni mel li ni ak andi ko fi mu accès bu len seigne Moussa mi toogee séeréel ni da ngeen def lu mel non war ngeen ko gëm seen xel war na ci dal itam jërëjëf sant na len bu baax gëreem na len bu baax coono yi bari na war war yi bari na waye waaye wu len daayu leen dellu leen gannaaw la ngeen waxoon daal seen digganteeg ak taalibe loolu yéen a ngi ci ba nëgën kon yàlla leen ci yàlla saxal yàlla yàggal ko fi moom itam muy sagub Seex Ibra Sarr di sagub Seex Serigne saar di sagub jaaw borom Touba sagub lan Sarr gépp tey jii kenn amul si sàkk ci ni li mu yeerub Seex Ibra Sarr bu ko taalu du tàkki fenn ci du tàkki fenn ndax lay taal li mu mm-hmm. ci moom mii la ko yàlla dogal mu di ko jëf di ko jëfal yëpp maamam ak ci ak taalibe la nekkoon joxe ba xam ne joxe bakkan bakkan sëñ bi ma nekk fii ci kër fi la fi la toogoon ñu muy génn àddina sëñ Touba dafa ko wóolu am ku njëkk a leen waxu turam wax ko ni jiitu ma ci sama borom ndax liggéey bi ma sémb dafa am lu fi des te digg bi jot na soo demee nga ne ko maa ngi mu ne ko ab topp day du jiitub seet mu ne ko bisimilah nañ ma wol Ibra Sall mu di wolu Seex Ibra ba Cheikh Ibra Sarr ak Cheikh itam sëñ Bamba jaar fa mu jaaroon na ko ko jiitu woon nee na tontu Cheikh Ibra Sarr mooy la mu ko waxoon ci njëlbéen rek jekk naa ba mu demee këram wéra ji nga ko daaneel ca ko daaneele moo ko yóbbu yomal xiyaam kon maamam bakkanam la joxe woon luxu malaak alalam kon bu toogee fii fas yéenee liggéeyal Serigne Touba fas yéene addiye yi nga xam ne moom la baayam daan liggéeyal Serigne Touba mu di ko rayale di ko yët ñii fi nekkal Serigne tuba ngeen ànd ko moom di ko ci defal loo xam ne tax na xelam dal xolam sedd na len woor ni li ngeen bëgg ci mom di ngeen ko am li mu bëgg ci yéen itam la ko am na len woor ni itam kuy wër Cheikh ibrahima sar tegg ko it autour ah, ngay wër waye bo teggé seigne Moustapha do gi Cheikh ibrahima sar Cheikh ibrahima sar mboolem ñu ko mës ci gënt di ko nettali dañ ne bañ ko gënté seigne Bassirou sar lañ gis yo yoon wi nag yoonu jëf rek la waxoon na ca suñu euh, ngan ngam ñëwoon Louga ni bëgg bëggoon na njabootu serigne Bassirou sa jaamu serigne Touba fépp foo xam ne jëf dana fa àgg ci yoon yi seeni jëf àgg waaye bëggul ñu bokk ñi nga xam ne seen loxo day ubbi seen jumñi mm-hmm. lu ñu xool ci télé ba ci internet bi nit jëfal ko Serigne Touba mu rëy ñu féetewoo ci awlaw awlaw du tax kenn am li nga bëgg bàyyi sa bopp bàyyi sa soxla mooy tax nga am li nga bëgg te jox sëñ Touba du tax kenn jeexal ndax ki wuutu fii mës a dencal boppam dara bana fi kër gu njabootam dëkk fanaanuñ biti bàyyiwu fi kenn kuy lebi dépense te mës a bay lu mu kon kam doon jox boppam kooku jugu fi te du jeexal sëñ Moustapha kooku la àndal yoon wi nag dañoo wax ne ab taal boo ci séen mooy tàkk nga seen sa war dañ koo xam xam bu taal ci kër kilifa yi yoonu murit mooy addiya kër goo ci gis li feeg li li feeg ak si woo ci ñoom doo xam ne fii defaru sëñ baa ngi fi na la wóor la war ci addiya dañ koo deful soo ko deful nag sëñ bi nee na da mel ni taal boo xam ne dangaa ngaa gëmm taal bu gëmm bi gëmum kese boo ñëwee ba teg sa soo ko yëg ni aw tàngoor a ngi fi waaye doo gis sawara doo jaaru soo bëggee taal buy bërëx bërëxi da ngay lax saayu li la war ci yoon nga di ko def te moom ci loolu la teg tànkam daa fa séene yëkkati Seex Ibra Saar ndax desul woon gannaaw ci sëñ Bamba joxe na lépp lu mu am yab na ay gileem yët sëñ Touba wut na ay saaku yu nguur yët sëñ Touba lu ne def na ko ba li mujj joxe ci boppam mooy mooy bakkanam jur na jébbal ko def ci leget jox ko mu yoral boppam def lépp lu ko ci sopp Cheikh Ibrahima Sarr amul dara sëñ Tuubaa rek la am kon koo xam ne da ngaa askandoo ci moom di am leneen looy bëgg baa di ko sa bopp ci liggéeyu sëriñ Tuubaa bii na nga xam da bokk ci Cheikh waaye bokkoo ci moom ndax bokk day am day fa am ñaar sëriñ bi dafa wax ne bu néeg bu am ñaari bunt nga jaar ci bunt bi génn ci bunt bee jaar nga ci néeg bi waaye dëkkoo ci nee ki dëkk ci néeg mooy ci sax li nga xam ne moom la mooy ki dëkk ci néeg moo ci sax kon sëriñ Moustapha mii nañu xam ne Cheikh Ibrahima Sarr xaqan la cheikh serigne sar hakal la serigne basirou sa jamu serigne touba xaqal la ndax la cheikh ibrahim sar bëggoon moko ca nekkal lolou ñepp tek nañ seen bëd du lu may wax rek de du njurel guma serigne bi guma guma guma guma guma jur motax ma di wax ah. du ak sama taalibe ci mom motax ma diko wax waye lu ñepp mëna a la sagal na lool mamam yalla nako yalla sagal yalla nako yalla deugural yalla nako yalla sam yalla dem ba buñu tak addi ñu mëna dajé lu mat fukki fan di wàññi ta duñ mëna agal àggal seigne Touba seigne Touba dara jëfewu ko ndax fuur wërsëg nek rek moko fa bàyyi kon yalla ko ñoo di jox leen ko ci ak tay ak jàmm ngeen andul ko mu and ngeen jëbal ko seigne Touba jëre jëf xolam sét na guuy ci assalamu alaykum wa rahmatulah am borom Touba jëpp nee na taxawaayam rafet na lool bu jaamu sëñ Touba del ci waatoon du ko yedd xana soñu ko sant ko gërëm ko liko war lepp ma nga ja suba ngoon guddi bëccëg jërëjëf Sarr yàlla na Serigne Touba guddal saw fan yàlla na Serigne guddal saw fan yàlla na Serigne guddal saw fan yàlla na Serigne guddal say xewal yàlla na Serigne Touba say xewal yàlla njoñ ak mboolem ku la ak mboolem ku la sopp ak mboolem ku la xam ak sama xol seet na kuy ci yow jërëjëf Sarr waaye tool na ne amiin dañuy mu yàgg fi te مدادي وأقلامي لكم عام جيشش سرورا عظيما لانتهاء عام بكسفين